Euh, mais monsieur le ministre le, le problème man fu mu amee problème personnellement mhm. mooy. Mhm. autant les gens nos politiques dañuy am ay discours de fond. très profond. Mhm. mais très matérialisé quoi. à l'image c'est vrai. mais dans la pratique c'est le contraire. Euh. finalement ban sens lay am est-ce que dinañ nekk ñoo xamante c'est des porteurs de voix wala nañ leen est-ce que les jeunes. seront dans les dispositions pour les écouter parce que l'histoire est là barki démb ñu ngi leen investir ils ont tenu tous ces propos pratique aussi bien ceux qui sont là et ceux exactement la même chose c'est-à-dire benn antinomie entre ce qu'ils proposent et la réalité du xam nga loolu moo ko indi nañu tëggee discours ba parce que dañu bari ci sunu dafa am benn cat bu nekk suñu homme politique defe nañ ni ñoom nu ñu tëggee discours rek baax na nañu wax rek nañu na digg yi bari na engagement yi bari na giñ gi bari na référence ci maa fi mën bari noonu lañuy ñuy tëgg te tëgg discours dafa nekk métier la soo gisee loolu am lañuy jëf di waroog la digge woon nañu tëgg discours bu la xam nga même bu dee 2012 ak at yi ñu nekk boo dee tëdd boo dee tëgg discours ci xëyu xale yi erreur bi gën a mag mooy nga ni su ngeen ma falee diiru fukki at wala diiru juróomi at danaa crée créer nangami emploi boo ko waxee rek daanu xam nga tax parce que xale yi dañ la fay xaar xam nga xale dafay yéeme parce que dafa jege yàlla moo tax boo ko digee du fàtte li nga ko dig. moom lay. moom lay wax xale yi waaw. Euh, candidat bu fekkee ni tëggul discours bi li ci ëpp du ko tëgg. loolu mooy indi lu ko lu ko li ci ëpp du ko tëgg. Mhm. mais na ko tëggulu ku mën a tëgg discours. foofu la solo bi nekk te ñun suñu homme politique dañu faydaalul ñi nga xam ni nii seen xam-xam dafa màcc ca la ñu bëgg ñu defal leen ko. donc tëggin ba foofu la problème bi nekk ma jox la ci benn firnde ci wàllu xëyu ndaw yi parce que moom mooy thème bi. Mhm. xale yi du homme politique moo leen di dig liggéey. xam nga kan moo leen di dikk liggéey seeni at naka la ati xale di liggéey di di di digge xale liggéey. seeni at seeni at moo leen di dikk seen âge